mu ne magam ji muy Hadj Ibrahima Niass bind ci moom dëgg ba te mu ne la mën naa toll fii moom fan ni Sadaka te bu ko weddee mu ne kon nag na ko moytu na moytu pays bi ndax pays bi pays lew nañu teel la yàlla may yàlla may nañu ko mu ne yàlla may nañu yàlla may nañu rawatina na moom mii mu ne ñu ngi gërëm ñëpp c'est-à-dire mu ne bañ ko takkee ci police ba di ko wàccee mu ne ñoom ñëpp mu ne nii rek la nag daf leen waxoon démb moom lay wax tey nañ joxante loxo xàccandoo dóorandoo mu ne bu ko defee kenn ku nekk sa morom jëlal la sa bopp buñ ko defee rek réew bi dana dox luñ bëgg ci biir rek dana dox mu ne gërëm na nag ay soxnaam ndax boobu ba léegi boobu ba léegi ñu ngi jaaxle. waaye nag waaye la tax ñu xeexal lislaam ne di ko tey day di dégg la ngay Alifatou euh, Niass a été convoqué. Mhm. Euh, lui est le vice-imam Mohamed Ibrahim mhm. Cet après-midi euh, au commissariat central de Saoulak. Après 30 minutes dans les locaux du commissariat, il y a une foule immense qui avait envahi les lieux et qui réclamait la libération des califes. Ce qui a été fait et le calife vient de faire une déclaration et tout cela